alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyai nabiyina wa xabibina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi nu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ci pas-pas ñoo ànd fàttaliku ni borom bi day subhanahu wa taala daf ñoo sàkk ba noppi mu sàkk mbindeefam moomu ñuy tuddee dee ngir mu nekk ab séddalekaay ñeel ñi nga xamante ni ñoo doon rafetal fii ci àddina ak ñi doon ñaawal borom bi mu ni sàkk dee ngir nattu leen xool ñi doon rafetal ak ñi ñaawal borom bi sàkk àjjana def ko ne mu nekk wàccuwaayu xéewal ñeel jaamam yi nga xam ne ñoo ko doon topp ci àddina bàyyi seeni bànneex ngir dabu ay bànneexam waaye mu sàkk kër googu di sawara def ko kër ak mbugal ngir ñi nga xamante ni ñoom dañoo toppoon seeni bànneex bàyyi bànneex li neex sunu borom subhanahu wa taala borom bi dee ngi ñuy fàttali ci téereem bu tedd bi ni waajal na ak kër goo xam ni kër ak mbugal la waaye ñakk ci étape bi mooy ñi nga xam ne ñoo koroon mooy ca kaw suuf ak ñi nga xam ne ñoo ñàkkoon a dégg ay ndigal sunu borom ni eey ñi nit ñi wattandiku leen sawara soo xam ni la koy taal ay xeer la ak la nga xamante ni mooy ay nit foofa amut matt waaye ay xeer ak ay nit ñoo koy taal sunu borom mu ni maa ngi ko waajal ñeen ñi nga xam ne ñoo doon weddi suñu borom ci kaw suuf suñu borom mi ngi wax ne yéen ñi gëm yàlla wala ee eh yéen nit ñi ñi ci gëm yàlla ngalawaay yërëm leen seen bopp ngeen fegal seen bopp fegal seen ak njoboot sawara may wax ni mbokk yi lu waay ñàkk ñàkk yërmande lu waay bon bon bon ab xol ba nit ñi di wax ni kii moom ku bon la ku ñàkk yërmande la jàpp naa ne war naa mën a yërëm boppam te bokk na ci yërëm sa bopp mooy li sunu borom wax ni lépp loo lépp ci yooye nga xam ni ku ca topp benn mën na koo tàbbal ca kër ak mbugal googa bokk na ci yërëm sa bopp maanaam nit ki di ko moytandiku sunu borom ni yërëmal sa bopp nga wattandikul sa bopp sawara waaye yërëmal sa njaboot tamit nga teetal leen sawara sunu borom ni na ngeen xam ni inna ladayna ankaalan wa jahima denc naa fa fa ñun ay xeeti mbugal yu méttee metti waaye denc nañ fa ñun sawara soo xam ne su metti la ak ñam woo xam ne ñam wu naqari la tey fotloo ay ña koy lekk sunu boromu ni ak mbugal moo xam ni méttit ga jéggi na dayo kon jaadu na képp koo xam ni ku sàgganoon la ci topp àddina rek da da ca gannaawam bañ a bàyyi xel boroomam subhanahu wa taala ak def ay ndigaleem mu góor góorgóorluwaat jaajaat boppam yërëmaat boppam waajalaat bu baax a baax te xam ni mbir mi nekkatut mbirum mbooloo waaye mbiram kenn par kenn la mbokk yi ñu bàyyi xel ni mbiram faatu dugg ci bàmmeel yi nekkul mbirum mbooloo ba dimbalante di ci am mbiram kenn kenn la mbiram góorgóorlu ba tàbbi àjjana du mbiram mbooloo waaye mbiram kenn kenn la balaa moo nekk mbiram mbooloo dañoo daje biir àjjana waaye ña nga xamante ni ñooy tàbbi sawarate yàlla nañ suñu borom boole musal mbiram kenn kenn lay doon bala muy nekk mbiram mbooloo dañ faa booloo daje kon aji gëm yàlla ji mu bàyyi xel lu mel noona góor góor lu te xam ni faw rek sawara moom joggi jàll dana fa am joggi moom dana fa am léegi nag mu des ndax joggi nga jàll dana ci am wala déet borom bi ni wa in minkum illa waariduha amul kenn ci nit ñi lu dul moom dana jaar sawar jaar moom faw mu am même ajana boo fa naree dem sax di nga jaar sawara suñu borom mu ni summa nunajji alladina taqaw ndax borom xam-xami lislaam yi dañuy wax ni borom bi dafa jël ajjana def ko ca gannaaw sawara nga xam ni doomu aadama pour mu jàll ajjana sax dugg fa ci kaw sawara lay jaar dem jaar ga nag su fekkee nit ki dafa nar a texe day mel ni comme ak melxat day romb rek jàll nga xam ni moom du yëg ni sax ci kaw sawara la jaar moom la sunu borom naan ñi ragal yàlla de dinaa leen musal ca jàll ga waaye summa nu najil wa nazaru zalimina fiha jithiya ñi nga xam ne ñoom ay saay-saay lañ woon sunu borom ni ñoom bu ñu jàllee ba ca digg ba rek borom bi mu ne dama leen di tarxiis loo ñu daal di tàbbi biir sawar wala iyaadu billah benn borom xam-xam bu mag dafay wax wax ju am solo mu ni fa anta min al wurudi ala yaqin wa min andajaati ala shakk bàyyil xel ni jaar biir sawara moom amatul sikk sàkk ba moom wóor na dana am kon moom da fa jaar waaye romb jàll ga moom sikk sàkk la ba léegi ci yow koo xam ni jaar ga moom wóor na dana am te mucc ga ba léegi sikk sàkk la loolu rek war naa tax nga gën a góorgóorlu bàyyiwaat xel sa digganteeg sa borom ci def ay ndigle bàyyi ay tere nga bàyyi xel ci sa xol ni faw jàll ga am jamono ba nga xam ni borom bi subhanahu wa taala dajale na ay jaamam fag ñu leen ñoom ñëpp góor ñaak jigéen ña mag ñaak njaw na ñu njëkk ñaak ñu mujj ña ñu daje ci benn place sunu borom àtte leen ba noppi tiis waag riir maag jaaxle gaag marwaag jafe-jafe ya nekk ci àllaaxira yépp daje kenn ku ca nekk nag ma ngay tiit ndax moom day mucc tey wala du mucc jamono joojo ñu ngay séen fa nga xamante ni mooy kër ak mbugal ga sunu borom waajal ma ngay bérex bérex nga xam ni moom it ab jaam la te genn ak topp yàlla dong laa mooy mbugal ñi nga xam ñoo doon mooy sunu borom sawara ab jaam la ci jaam yàlla yi lijjanti mbiram ña doon mooy sunu borom bañ mbugal leen loola da cay kontaan loolu moom sawara ndax moo di jaamoom àjjana am mbindeef la ci mbindeefi suñu borom yi lijjanti ña ko doon topp moom borom bañ bànneexal leen ajjana day jaamoo yàlla loola moo tax kenn ku ci nekk ci ajjana ak sawara dafay yàkkamti ñu yët ko ay gaayam borom bi subhanahu wa taala def sawara moom ma ngay ñoddee ko ka weñaaru ak fittaxu ci yàkkamti ña nga xamante ni ñoo doon mooy sunu borom moo tax borom bi wax ni subhanahu wa taala ida raatuhum min makanin baid gis nga sawara buñ leen buñ ko séenee ci barab bu soree sori nga xam ne da toll fu sori di seen sawara wala sawara boog toll fu sori di seen nit ña ña nga fu sori yegg suñu sunu borom ni samiu laha tagayuzan wa zafira ñu ngay dégg sawara ma ngay fëftandiku ak di xaacu ngir yàkkamti borom bi jox ko lim am ci cër ci jaamu malaaka dañ doon sujoot ak a jaamu nit ña ak dañ doon sujoot ak a jaamu waaye sawara moom ba léegi moom deful dara moom ña ma nga ñu teg rek di xaar kon pour mu mbugal ñi doon mooy sunu borom moo di jaamoom moo taxit moom mi ngi yàkkamtee ka xaacu ngir bëgg borom bi jox ko ña doon mooy ngir mu jaamu yàlla ci ñoom muy sunu borom mbugal leen ca ñoom ca moom ca jamono jooju mboolem ku doon mooy sunu borom nag ci lay daal di yégee ni ndekete kat fi ne mbir mi nekkatul mbiram caaxaan waaye mbiram dëgg la ndekete yëf yi kat luñ la doon wax ci mbiram àjjana ndekete jaroon na liggéey ba jeexal tàkk luñ la doon wax ci mbiram sawara ndekete jar na mooy te di ko ba daamu borom bi mu ni wara al mujrimuna annaar fa zannu annahum muwaqiuha ñi nga xam ne ñoo nar a ba ñu séenee sawara fa saasa rek ñoom yëg nañ ñi ñoom fi ne tey du baax su sunu borom mu ni walam yajidu anha masrifa te dañuy gestu ba sonn waaye duñ am fenn fuñ mën a jaar ba mooy tendiku ba mucc ca sawara soosu borom bi subhanahu wa taala mu ñëpp ñooy jaaxle nag ñëppay tiit su boobaa amul ab yonent amul ab malaak amul nit ku baax amutub sëriñ amutub taalibe borom bi dani wa tara kullu ummatin jaafiya da gis mboolem xeet ñoom ñëpp ñi ngi jaaxle tiit ba sukk seeni ba tifoom kullu ummatin tudu'a ila kitaabiha xeet wu ci nekk rek borom bi daf leen di woo ca seen téere ba ñu yabaloon ca ñoom wala nit ku nekk yàlla woo ko ci téere jëfam ki naan leen al yawma tujzawna ma kuntum taamaluun bu yeboo ngeen xam ni kat tey moom bisab fayeeku la waaye li ngeen doon jëf rek lañ leen di fay foofu nag borom bi subhanahu wa dogal nag aji woote di woote ana diw doomi diw ak diw keneen ana diw doomi diw ak diw ñu tudd ay tur mbindeef yi sunu borom yépp di ko dégg muy nekk koo xam ni moom bi mu newee ci àddina moom liñ ko doon wax ci mbirum àllaaxira moom faalewu ko sax ay jaamu yàlla moom nekkuloon ay yitteem mooy sunu borom ca la doon nuur sunu borom daal di yebal ay mbindeef yoo xam ne dañoo ñëw pour di ko kokkali ca mbugal ma ko sunu borom di naan ko duq innaka anta al azizul karim eey diw kaay mosuwaay tey kat la yàlla defal ci teraanga nar naa neex lool te fekk loola waxi kokkali la ndax bañ ko koy wax ci fekk na ca mbugalum sawara maa ko tax a jóg borom bi subhanahu wa taala dogal mboolem ña nga xamante ni ñoom ñooy tàbbi sawara barab yu xat la leen suñu borom di dugal barab yoo xam ne doomu aadama du fa mën a bi tarñiku mbaa mu fay wëlbatiku borom bi mu ne ida ulqu minha makanan dayiqan muqarranin daaw hunalika subura borom bi mu ne bu leen jàppee ba tàbbal leen ca barab ya ma leen waajal nga xam ni barab yu xat la yoo xam ne doo mën a wëlbatiku suñu borom yi da ngay dégg kenn ku ca nekk ca ñafa tàbbi wala iyaasu billah ma nga yuuxu ay yuuxoom suñu borom naa leen laa tad'u yow ma thuburan wahida yuuxu wàllu moom bu yoba ngeen xam ni benn doyu ci ndax lu ngeen foog ni mooy ñëw ci mbugal rek lu ko raw mi ngi ci gannaawam borom bi subhanahu wa taala mu ni kërangoog goo xam ni dañ fay sax dàkk dañ lay yeew ba nga ni ŋoot doo fa lekk-lekk gu baax doo fa naan naan gu baax mbokk yi jàpp naa ni doomu aadama ci yërëm boppam war nay tax lépp luñ ko wax ni mooy tax nit ki tàbbi fa rek mooy ko ko waaye luy tax nit ki mucc ci mu góorgóorlu ci bu baax borom bi naa leen haadihi jahannamu allati yukadibu biha almujrimun ah sawara si ngeen doon weddi ci àddina day sunu borom mi ngi ni mi ngi nii yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan borom bi mu ni xel wi ngay daw da ngay daw aw xel ba seen fa ñuy naanee rek sunu borom mu ni boo naanee ndeke ndox mu tàng lay doon nga déparat dawaat aw xel seen beneen barab boo yaakaar ni féexlu kaay la ndekete foofa sawara la moo tax sunu borom ni dig digal soosu la nit ñi di jaabante mooy yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan sunu borom ni moyta ndikku leen de innaha sawara soosa de saat bon na mustaqarran barab buñ nar a yendu wa muqaaman ak foo xam ni fa nga nar a dëkk ndax barab boo xam ni barab la bu xat te la fa nekk lépp ci ay xeeti mbugal la lenn ci am péex du fa am borom bi subhanahu wa taala mu ne xanaa péex ma fay am day péex mu ñuul kukku lay doon moo xamee mooy doon péexam sawara nga xam ne la ca nekk ci coolool saak tàngoor wa borom bi rek moom moo ko xam yàlla na sunu borom booleen ci musal borom bi mu ni falladina kafaru ñi dëgër bopp ci kaw suuf nekk ci li leen neex quttaat lakum thiyaabun min naar borom bi mu ne ay morso laa di daggal ay yére ñee na ngeen ci xottil ay tubay ñee ñu xottil leen ci ay mbubb yoo xam ne ci mbubbi sawara ya sunu borom mu ne yu sobb min fawqi ruusigimul xamim sawara sama nga tiim ca seen kaw bopp ya ñu koy sotti muy laal ci seen yaram wa sunu borom mu ne yusharu bihi ma fi butunihim wal julud yàlla muy dafay wésam la nekk ci seen biir yaram wa yépp ci ay boutique ak la nga xamante ni mooy ay mbàq borom bi mu ne walakum maqaamiu min xadid am nay xeeti weñ yoo xam ne moom lañ di tiimale seen bopp yi di leen ca dóor mu ni kullama araadu an yaxruju minha saa bu ñu dawee ba seen kaw kawe bu ñu jàpp ni fii kat bu ñu fa jafandoo daal di yëg génn ci sawara sa sunu borom ni uidu fiha dañ leen di ba mu xaat ñu tàbbi ca biir borom bi naan leen wa duuqu adab alxariq mos leen ci la nga xamante ni mooy mbugal mi ñu doon dégg ca fii ca fële ca àddina borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ni bokk na ca jaaxle ga ak mettit wa mooy waa sawara dañuy woo malaaka mi nga xam ni moom mooy garde sawara wa naadaw sunu borom li ña ngay woote wallu te naan yaa maliku li yaqda alayna rabbu ey malik tee nga nu dimbali nga tinul ci sunu borom nee ko nanu faf jikkali benn yoon ñu faf dee mu jeex malik daal leen tontu ne innakum maakithuun muhammad ibni kaab al quradi rahimahullah ci borom xam-xam yu mag yi dégg alquran la bokkoon mu ni bu ñu wootee woote googa Malick dana toog ay junni junni at doog leen di wuyu ci at yu yàgg yooya nga xam ni ñoom jafe-jafe bañ am mooy ñu wuyu leen rek ngir ñu xam ba xam lañ leen di wax lan lay doon borom bi subhanahu wa taala mu ña ngay woote di woote ak a yuuxu fi mu nekk nii day gëm nañ di lii ñu def day ñoo ko yayoo ndax ñoo doon mooy sunu borom eey Malick waxal nu sunu borom nee ko jatang yin ñu jatangee fi ne dafa diis gann waxatuñ waxi mbugal mi waaye jatang yi ñun jata jatangee waa sawara muy chaîne yi diis na lool ci seeni i mbagg nga xam ngeen ni jatang yooyu borom bi subhanahu wa taala mu ni ca seen mbagg ya maam doomu aadama li gën a métti ci xeeti mbugal lañ koy def xam ngeen ni nit bu sëqoon kawar nga jàpp ci kawar ga fa tolloog jëba di ñot mu jëm suuf loola daanaka ca xol ba lay jàpp te noonu la borom bi di jatangee waa sawara sunu borom mu ni yurafu almujrimuuna bi siimaahum fa yuxadu binnawaasi wal aqdaam yàlla mu ni kawari bopp ba ca jëba fa laay xëcc rek jatang fa te yeew fa ak buum yegg si ba ca tànkee yeew fa muy jatang goo xam ne au lieu que mu jàpp ci tànk ak morom ma waaye jatang la boo xam ne ca tànk lay jàpp ak jubbi kawar borom bi subhanahu wa taala mu ni ña nga yuuxu naan Malick ah ñun mi metti na Malick jatang yii nga xam ni moom lañ ñu gàll de diis na gann Malick fi ne nii de yëg nit ñi bañoon a judd sax moonu gën a loon judd di am lii giñal nañ la ci yàlla ni waxal suñu borom nee ko buñ delluwaatoon ci àddina lim doon bañ duñ ca jege dara waaye lam doon bëgg danañ def lépp suñu borom subhanahu wa mu ne lañ leen di tontu tontu lu metti lay doon ci ñoom mooy laata xiina manaas mooy der wees na mbuus maanaam fa ngeen waroon a jéggaloo fi ne romb nan ko wala xuruja lakum min daaril hawaan fi mu nekk nii amut génn borom bi naan gaaya naan galabat alayna shiqwatuna ñun de xam nañu dañoo xalku wa kunna qawman dallin yow sunu borom axrijna minha dimbali nu nga génn ñu fa in udna fa inna zalimun sunu borom ni ixsa'u fiha ba yaboo ngeen yëg ni foofu da ngeen di sax dàkk wala tukallimuun te bu leen waxati ak man Muhammad ibni Kaab al Quradi day wax ni bu sunu borom ne wala tukallimuun nee na dootoo déggati benn kàddu rek di ko ci waa sawara di jëm ci suñu borom wala iyaazu billah borom bi subhanahu wa taala mu ni walaw tara id wuqifu ala annaar cay boo gisoon waa sawara ba leen sunu borom taxawale ci koosaw sawara fa فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ña ngay wax naan ay bu ñu yëgoon du nu weddi sunu borom cay bu ñu yëgoon bànneex bañ doon bànneexu ba tax ñu tàbbi sawara da xaw tuuti da koo jërut ndax fàtte nañ ko sunu borom mu ni ñu ni dañuy bokk ci ñi gëm yàlla yàlla mu ni bal badaa lahum maa kaanu yuxfuuna min qabl da ngeen di kàcc de moom kay la ngeen doon nëbbu ci lu bon yàlla da koo fësal tey waaye walaw ruddu la aadu lima nugu anhu wa innahum la kaadibuun bu leen delloo woon ci àddina sunu borom mu ni xam naa ni la ma leen tere woon ci ngeen di nekkaat yéen ñëpp da ngeen di kàcc waaye seen borom xam na ni li ngeen di wax du dëgg foofa nag fa la ñuy ñàkkee yaakaar ci yaakaar ji ñu amoon ci seen borom ci seen sunu borom seen borom yërëm leen sunu borom mu ni fa kubukibu fiiha hum walgaawuun wa junuudu iblisa ajmaun sunu borom nee na ma bërëng rek tàbbal ca biir sawara ñoom ñëpp ak ñi bew ak moykati sunu borom yi ak mboolem ña nga xam ne ñoo nekkoon partenaire ak i soldaar ci nga xam ni bu ñu dëggee ca biir sunu borom mi ngi wax ni la leen tiim sawara lay doon la leen suuf sawara lay doon coolool si bàyyi koo ca ndeyjoor ak càmmooñ sawara lay doon sunu borom subhanahu wa taala mu ni seen ak lekk ca sawara sa lay doon seen ak naan ak colka ga ci sawara lay doon lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim gawaash nga xam ni bi daf leen daggatal ay yére ca la nga xamante ni mooy mbugal nga xam ni sunu borom subhanahu wa taala mu ni amut benn waxtu woo xam ne des na ko seeral ca ñoom yal na borom bi boole ñu musal ci mbugalam foofu sunu borom mu ni amu ca kenn nag koo xam ne di nga miis mbugal ma ndax doomu aadama bu fekkee dañ koy mbugal di ko def yu metti bu yàggee mbugal mu metti moom da koy miin waaye sunu borom mu ni saa bu ñu demee ba nar a mbugal ma rek damay suppiwaat seen der ya seen melokaan ya suppi seen xol ya def leen yeneen nit sunu borom mu ni li yaduqu l adab ngir ñu gën a yëg mettitaayu mbugal ma borom bi subhanahu wa taala mu ni danañ toll foo xam ni dee daf leen di dikkal ci wet gune ndax xam ngeen ni ki nekk ci sukkuraat kooka la muy ci aw mettit kuy dund tëjut lu ko lu ni mel borom bi mu ni foofa la ñuy toll wa yatihi lmawtu min kulli makanin wa ma huwa bi borom bi mu ni da koy dikkal ci ndeyjoor dikkal ko ci càmmoñ mboolem wet yi nga xam ni moom la doomu aadama xam muy aljihaatu sit da ko cay dikkal waaye sunu borom mu bi mayit borom bi mu ni du dee summa la yamuutu fiha wala yaxya borom bi mu ni du ma ko bàyyi muy dund du ma ko bàyyi mu faatu laa yufattaru anhum wa hum fihi mublisuun yàlla mu ni benn minute rek du ma wax malaaka yi nañ ko teggi mbugal mi tey dañuy ñàkk yaakaar ndax fu ñu doon woote wallu fu nekk rek suñu borom jañax da foofa mu sori leen suñu borom mu ni ñoom kat duñ leen faat la laa yuqda alayhim yàlla mu muy waa sawara du leen rey de kon dafa yamutu dañuy dee te buñ dee nuppalu wala yuxafafu anhum min adabiha yàlla mu ni duma leen oyofal mbugal mi mukk kadalika najzi kulla kafuur sunu borom mu ni képp ku lànkoon santaane suñu borom na nga yëg ni lii lan lay fayee ëllëg bis boo dajeeg sunu borom sunu borom mu ni yooraful mujrimuuna bi siimaahum bandi bu nar a tàbbi sawara yàlla mu ni boo dikkee àlaxira boo ne jàkk rek danga koy xàmmee muy noo koy xàmmee mu ni ay màndarga leen di yàlla defal yu wel ni ñi ñoo war dem sawara bokk na ca màndarga yi mooy fa yuxadu bin nawaasi ca ci kawar yi ci jubbu ba fa tiim jëba sunu borom mu ni foofa la ñuy weñaar ci ay ceen ba mu dëgër wal aqdaam la ca des ñu daal di koy jatan tànk ya borom bi subhanahu wa taala mu leen ñee yàlla dafa leen tëxloo seen i nopp ñee mu gumbalee seeni bët sunu borom mu ni ñee dafa tëj seeni gémmiñ mu ni mawaahum jahannam fañ nar a tàbbi mooy sawara lama xabat bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saahiran sunu borom mu ni ma jafalaat taal bi rek mu gën a tàkkaat xoolal loolu ndax ndaw loo xam ni yaa ngi toll sa digg àddina sa deret di daw nga xam ni wóor la ne ñeent fukki at sax làkk làkk goo ko xoolal kooku ni mu ni mu tëlee ci muñ rek aw xawlu sawara woo xam ne joggi na ko xoolal mag moo xam ne dem na ba làq juróom-benn fukk jëm kaw nga xam ne wóor na leen li gone mën a muñ mag munu koo muñ mu wóor ñu ñun ñëpp ni lii mbirum kenn par kenn la wallahi mbokk yi mbirum kenn par kenn la doomu aadama ju nekk ak ku mu mën a doon ku mu mën a yaakaar fu mu mën a tëbb lu mu mën a yaakaar ni mën na koo xittil yawmal qiyaama na xam ni mbir mi mbirum kenn par kenn la borom bi subhanahu wa taala du woo kenn buy lijjanti keneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani fa sunu borom di àttee jaam bi kuy traduire wax ja sax du fa am laysa baynahu wa baynahu tarjumaan amul koo xam day taxaw naan a ah, kii kat làkk sàngam lu doon làkk kon sunu borom ma waxal la li muy wax déedéet yàlla mooy damay wéet ak yow wéet goo xam ni amul kenn kuy traduire li may wax waxuma laag nag kuy taxaw di tinu fa tam ma tanfaakum shafaatu shaafiin addina warngal kat bu daje woon dañ lay tinu yàlla mu ni ñoom ñëpp buñ déposé woon seen i tin yàlla mu ni yëpp laay fa la xisaane lu xew ndax da doon bokkaale yàlla mbokk yi bokkaalekatu yàlla mboolem yonent yàlla sàkk ci àddina bu ñu daje woon dajeeg malaaka yi dajeeg xamalatul arsh ñëpp kenn ku nekk mu déposé kayitu tinu ci suñu am pour nañ tin waaje yàlla mooy du ma ko baal loolu mooy fa maa tanfaahukum shafaatu shafiin mboolem tinukat yi bu ñu daje woon yàlla muy ko du ma ko baal lu ko waral mooy dafa faatu ci bokkaale yàlla te giñoon naa man yàlla te duma ma giñ ba noppi di ko kafaara mooy bokkaale kat man suñu borom seen borom du ko jéggal mu ne noonu nag ca la waajay nekk nga xam ne alquran mi ngi naan suquuma an xamima ndox ma nga xamee ndox mu tàng jër la borom bi mu ni moom lañ leen di nandal sunu borom mu ni fa qattaa amaakum su ko defee ma ngay daggat la nekk ci seen biir yi benn borom xam-xam bu mag dafay wax ni mu ndax yow mas ngaa benn xabaar bu bàyyikoo ca waa sawara ak yu metti ya nga xamante ni moom lañ fay daj mu ndax yow mas ngaa xalaat ni nit dana dekk jekki tiit ba mu yàgg rek ak sidit gu jàpp ca yaram wa jàpp ca xol ba ne tàppit dagg li ko waral mooy tiitaange ci xol lay dem su ko defee tiitaange jooju day yegg ci nit ki day jékki-jékki rek sidit yi jàppoon ci xolam di dagg lu ko waral mooy tiitaange ju métti ja la ko waral moom mooy tiit ga ñuy tiit ca la nga xamam la ñuy dégg cam riir ñaareel mooy tiit ga ñuy tiit ca la ñuy gis ca seeni bët ci xeeti mbugal muy ndax xam nga xeeti mos ngaa dégg moos xeeti jatang ya nga xam ni moom la suñu borom di jatangee waa sawara nga xam ni moom lañ leen di ba xëye nga xam ne yu daxuuna ila naari jahannama daan di leen bëmëx di leen jañ ñuy dem muy ndax mës ngaa jot ay xabaar ci palaas yi poqus yi ñu leen di dugal na mu xatee nga xam ne nit ki bu taxawee du mën a siggi nga xam ne nit bu sëggee du mën a siggi nga xam ne nit ki bu wetoo du mën a wëlbatiku nee na bu ñuy daw du ñu am benn barab boo xam ne mën nañ faa jaar ba mucc ndax mas ngaa jot xabaar ci ay xeeti jaan yoo xam ni borom bi ba mu leen bindee yooya jaan mu nu mosu ñoo jaar ci àddina yooyu jaan sunu borom daf leen a bind rek tàbbaleen biir sawar ni leen yéen moom toog leen xaar seen ak jaamu mooy mbugal bokk ca mbugal ma ci ñi nga xamante ne ñooy narab tàbbi sawara mu ni ilayhimu xuliqat min xaalisin naar ñoom la tax yàlla sàkk leen mooy nañ nekk jaani waa sawara rek waaye ñoom buñ ñëw ci àddina ndax mas ngaa dégg ay xabaar ci xeeti mettital yi nga xam dañ leen koy mettital ci biir sawara te bokk na ca mettital ya mooy ay xeeti montagne yu nekk biir sawara dañ leen di wone leen hey kaay leen yéeg yoo xam dafa tax lool te yéeg kat force la ndax jëmmi yéeg da ngay dem ba xaw tuuti kon mooy gën a yomb fi nga taxaw xeeti door yin lay door pour nga yéeg nee na saa ñu yéegee ba yegg ca kaw rek nga seen ñu daal di indi ba ma xaar ñu daal di yeggaat suuf suñu xitili ko du si leen xitili bu ñu musuloo kenn du leen musal te it nag bu ñu demee ba yëg ak ngëmmentu nee na su boobaa kenn du leen bàyyi ndax nelaw amul biir sawara wa in yanaamu wala yanaamuun te duñu nelaw in taafa almanaamu bihim saa bu ñu demee ba yëg ni ngëmentu ñëw na rek suñu borom mu ni damay fil nelaw ya waaye ngëmentu di yegsi ci ñoom ak ay mbir yu baree bari yoo xam ne lay wan ni mbugalum suñu borom lu metti la kon mbokk yi nu ngi jéggalu suñu borom subhanahu wa taala di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe di yëg ak lot akuk doyadi akuk tële ak ñàkk man yëg ni amut lenn loo xam doomu aadama mën na koo dékku ci xeeti mbugalu suñu borom ñu ngi yërëmtalu ci suñu borom di ko ñaan ci turam yu sell yi ak yërmandeem ju yaatu ji ak mbaaxam gu rëy gi yàlla na borom bi musal na ci mbugalam allahuma ajirna min annaar allahuma ajirna min annaar allahuma inna nastajiruka min naarik allahuma inna nasaluka alfirdaws al ala allahuma inna nasaluka alfirdaws al ala allahuma inna naudu bika min adabi jahannama inna adabaha kana garama allahuma taqabal minna innaka anta alsamiu alalim wa tub alayna innaka anta altawabu alrahim wa sal allahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain